تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا am nañ ku kenn amul koo xam ne jëf ye mu jëf ku jëf ko dégguñu ko njaayeen de raw nanu ndax am nañ ku kenn amul koo xam ne jëf ye mu jëf ku jëf ko dégguñu ko kookaay ka feeña ca sëriñ bi woolu sëriñ ma masamba jóob daldi koy wax dem fa yow tuddi ko booy dem nga ànd ak sëriñ mbàkkeek sa mbokku mile seex anta gaawaan te boo yeggee nga tudde ma ko turam wa mooy baay sëriñ njaay mbër ma daa defari diggante moo tax ñu dëngoo xel yi gaaw daji ko ñaanuk sëriñ bamba daa nangoo ci moom sikkuwul ngir Bàmba kuy defar yow yàlla baaxe ma ko amul ci kaw suuf si fooy tuddu tiram fa gis kuy ñaawlu aw doxinam moom kenn nit bañu ko amul ci kaw suuf si fooy tuddu turam gis kuy ñaawlu aw doxinam ko murit la woon bu dëggal gëm sëñ bi topp ndigal lu sëñ bi digle mu def talum tareet mu ba ko mboolem njabootug sëriñ Tuubaa gi xam nañu ko def nan ko conseil te fullal nan ko yëkkati ko xoolal sëriñ fallu seen diggante nam rafetee la dox sëriñ fallu ak moom kenn réeréew ko sëriñ fallu woon ko bis teral ko teg ko ci kaw defal ko lool du amaat ko gis ku làqati ko sëriñ fallu woon ko bis teral ko def ko ca kaw defal ko lool du amaat koo gis mu làqati ko sëñ Fallu woo ko bis teral ko teg ko ca kaw defal ko lool du amaat ko gis mu laqati ko sëñ Abdulaat moom da ko doyloo ci wàllu gune jàppee ko konseem du def lool bay sëriñ yëgu ko baylaat lu xew bu waxee buy noppi woo ko ne ko sëriñ delee ma waxoon naa toog nga nettali ko mu andi discours ba jàngat lépp jàng gu wér du yokk baat wala tëb loo xam ne indi na ko Cheikh Abdou Khadir itam ko yëkkati ko mayoon ko nopp te lu mu wax it mu feddali ko buñ nee diw ak diw neexoo wuñ mu daan ne ba xam si njaay yëgoon na ko buñ nee déet mu woolu ko buñ nee ko waaw waaw danaa kon yàlla moo namagul seenug juboo ngir defar moom kenn daxu ko ko digganteem ak Cheikh Souhaïbou boog Cheikhu Saalihu tam rafet na moom amutoon koo xam ne jëppi na ko Cheikh Mourtada nan meloon moo tax mu fob ka mu jur jël jox ko jàmbaari jeewal ñëpp xam nanu ko Cheikh Mourtada nan meloon moo tax mu fob ka mu jur jël jox ko jàmbaari jeewal ñëpp xam nanu ko Cheikh Gaynde Fatma itam ñoom ñaar danoo xaritoo looloo waral bay sëriñ fab gaynde tudde ko ko siñ mbakki Madina siñ saaliwu safiir ma wayoon mada sëriñ njaay danoo doyloo ko yëkkati ko tanam meloon ak njabootug sëñ bi noonu la meloon ak mbokku yam mbokkaloon ba kenn ci ñoom sikku ko ñam mbokkaloon sëñ birahim sant nañ ko bu wér maam alliyoog sunu maam aas day wegoon nanu ko ak maam bu soobeeg sëriñ xaamit ma doon xaritam di wëllëreem di rakam joo xam ne topp na ko ak maam bu soo beeg sëriñ xaamit ma doon xaritam di wëllëreem di rakkam joo xam ne topp na ko seenub diggante danaa leeral ci tuuti nga xam danaa waxit li waral ñoom ñaar ñu bokki ko seen ànd fam tàmbalee daa yàgg ndax géde la ci maam Birayim ma leen yar nër bañ nuru ko siñ xaamidun dafa jàppee bay sëriñ sëriñam te bay sëriñ yititam siñ aamidun jëmu ko siñ aamidun na mu fonkee bay sëriñ gisaguñ ku def ko noonu te wax ji mag ñi seere na ko doomam ju toll ci dem kër bay sëriñ la di woo bàyyee ko lépp te duy buy tuddit mu ñëw tudd ko doomam ju toll ci dem kër bay sëriñ la di woo bàyyee ko lépp te buy tuddit mu ñëw tudd ko tuddee na doom bay sëriñ tuddee na baayam itam tuddee rakam koo defal lii dëgg fonk nga ko tuddee na doom bay sëriñ tuddee na baayam itam tuddee rakam koo defal lii dëgg fonk nga ko kon gàcce nga laama ndem seen sët yi xam nañu li bay sàmm kóllëre googe dox ci feddali ko na yàlla sàmm ta aar seen sët yi yëkkati leen bañ egg niw yoon te seeni naal ñu yeggale ko na yàlla sàmm ta aar seen sët yi yëkkati leen bañ egg niw yoon te seeni naal mu yeggale ko te dolli yërmande ak xéewal ci baay sëriñ ak mboolem njabootam nga woon fii tey ñu fekk ji ko sëñ Mbàkke sëñ Babacar sëñ Fallu seen rakk ja ak soxna Mbeen Fallu seen yéeneet mu mottali ko sëñ Mbàkke sëñ Babacar sëñ Fallu seen rakk ja ak soxna Mbeen Fallu seen yéeneet mu mottali ko yàggal fi it sëñ Birahim may ko fan wu gudd moo ko rakk yàgg sëdiya seen noo nit loram téye ko yàggal fi it sëñ Birahim may ko fan wu gudd moo ko rakk yàgg sëdiya seen noonit nit téye ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ahousubillahi min sheytan rajim bismillahi rahmaani rahim ñuy sant suñu bu baaxee bu baax xam naa sët yaakaar naa mooy dayiru Taysiir Taysiir Lansir dañu faa ñëwoon am na ñu sàkkoon ci man waa kër sëñ Amidou Ndiaye it am lu ñu sàkkoon ci man kon xam naa xasida gi mu jàng nag wax di yàlla jàmbaar lool am na solo lool moo tax waaye nag ñu jéem topp ci moom rek kon ndax dama ni ay sët yu baax yuy gëstu maam ngir bëgg a topp tànki maam muy maam mu jaar ci tànki daam ñooy laaj mu jóg tontu ba xam ñuy sët yu sa bàyyi si njaay gede mais dëkke woon yoonu gede ka wax ya nooy dawul gëdde te ay waxam léppee xikam lim jokk nag ci bokk gi bokkuk mbusoo mbakke gi ñii sant si ak aafe gi jëllale naa ñii sant dem dégguma kenn ku ko def ku gis ku gis nit ku ko def du neex a gis yàllaa ko def ci coobareem ak kàttanam ma wax la leen ni nga xam ni bàyyi sa njaay kemam amul li tax nag ab xolam daray kañaan kooju ko tam ne ñaari sàmba yi bamba mii muy sàmba aminata mii ak sëñ ma sàmba kanni mii ku nekk daa amuk mayam sàmba aminta ku ca laal dafay ragal rabbun jëlil ma sàmba kanni ku ca laal faaw naw ak taalubeem sëriñ Birahim wax jile fekkee na ko mi ngi ni le laaj leen ko ndax saa wax jile ma wax ci sàmba yi ba moo wax la bàyyi suñ mile fa mu jànge nag ba àggale ba bopp nag téere bile ak fan la jànge xam-xamam sëñ Bàmba nag moo ko dalal ba noppi xel yi mu dalal ngir def ni leen cëy bii xaleel ndaw kaang mu teel ngir waajuram sëriñ Birahima alxuraan li ci naan doom ci ca naan day gaaw wattu alxuraan sëriñ bi ñaanal ko mu dem xam-xam bi nag sëñ Mbàkke la jànge ci diir bu gàtt la sëñ Moodu mag doomam jile la rowaate léppi lépp ci ndabam sëñ Fallu seen diggante ba nam rafateeg duggante ba danaa ci wax benn te ba ngir géej la kenn du ko dëdëm sëñ Fallu mas naa fatu bis ni tey de moom kenn du ko gis fa mu war ñu di ko gis mu teg fa bàyyi sëriñ di dem lu waay di wax na ko ko wax lu waay di jox na ko ko jox suñ Fallu wax leen jile wax mooy saa jëmmu tey may jëmam yar na njabootam soog a dem jàngal na leen ba ñëpp xam danaa dikkaat ku ne ci ñoom ma wax la lam doon ci moom sëñ Mbàkke Njaay sëñ Fallu Njaay sëñ Mbay mi doonoon sama waaye ñoom ñëpp nag ñu leen di jooy nabuur dugal leen ca naxiim ab di ñu ngoogu sët yi kon seen maam ji xóoma ku ko gën kuro jikkoom yi daal di gën ci say moroom fa sa boroom na sëñ Birahim yàgg fi wér gudd fante yokk fi ak i rakkam ma tënk fii danaa dikkaat saraañu xam lii sët yi ñoo fa ñëwoon bëgg ma defal leen ko waa kër sëñ Amidou Ndiaye ni ñu ko tudde nag ba ñu gisee jikko yu mel nii ci bàyyi si Ndiaye Guédé ñoom itam ñu ne ku am jikko yu mel nii kat jaxasoo moom baax na lool ñuy sant sëñ Birahim Ndiaye nag ci xalaat gi xalaat ni tudde ko kat sëñ du Ndey lu war di sant sëñ Cheikh Ndiaye mi ko fi teewal ah, léegi nag wala fi daa am lu ñu wax nee nañ fekkee da am jiw lu jiw yu baax baax te jiwu ko ci suuf su baax maanaam doo am gàncax gu baax soo jiwu nag lu mu muus muus muus te muusu yow ba tax ko ci bàq suuf suy nangu rëccu ko waaye ndégal ba gis bàq gis suuf nag su nangu nga ca sëw jiwu boo bayee am dund am sa rëndaay wal bala du tayibu na nabaatu ba tey te la si xabu saat day génne ay saxayaay sëñ Amidou Njaay de moom daa dégg laaye jile moo tax ba muy ji ci wóom ci wóom daa tànn bàq bu tooy sëñ Amidou Ndiaye de moom daa dégg laaye ji de moo tax ba muy ji ji wóom daa tànn bàq bu tooy li tax mu jël ñetti doomam yéene barke ci ñoom ni leen jigéen bu rëbbee jam bu rëbbee jam jam ci paddu du sooy li tax mu jël ñetti doomam yéene barke ci ñoom ni leen jigéen bu rëbbeeg jom jam ci paddu du sooy mu naw jikkoy bàyyi sëriñ Njaay xam ni li bëgg am de am na ko mu ne eewaay eh kaay ndey umi Njaay jébbal ko sëñ Fàllu Njaay France ku nekk di yéem mu daldi cay dolli soxna Bintu Njaay ni ko kaay jébbal ko moom it sëriñ Ousmane mu wax ni ko jox sëñ Fallu bul fàtte sëñ Ousmane bu soo dikk waaye mu teg ca it soxna May Njaay maam sëriñ la ko jox ngir sëñ Maram bàyyi sëriñ kee laax la kii di cafaay sëñ Ami Dun ñetti doomam nag la jox ñetti doo mi bàyyi sëriñ Njaay tuddee koo doom moo nekku fi waaye sëriñ Birahim de maamam dañ ko tudde mu tudde bis bi sëñ Ami Dun daa fedd léegi laxasaay la bàyyi nekkoon mu daal cay nekk gis nga sëriñ seex it de maamam de lañ koy tudde dooma di bàyyi sëriñ Birahim sëriñ seex ànd bey ànd bi waajur ya toogoon ca nay seen lal di seen ngegenaay ak fan ko bokk ci njaayeen siiw na ñëpp a xam njaay mu ne njaay bu ko see jib nag ñu fàtte ne njaay moo boo ne njaay mu ne njaay rek du ñu soxla ci njaay bu sante neneen waaw xam naa ne ngor naa ba tàyyi sax muy ma soxna ngir loolu loolu ma sëndul njaay waaye ñoo waaw ak fonk bokk ci njaayeen siiw na ñëpp a ko xam njaay mu ne njaay bu xësee jib nag ñu fàtte njaay yàlla na ànd bi yokku fan yi gudd te wér te sax ci jàmm te saytaaneet na mer ba gàddaay te yàlla dolli ci yonneen yi wudul séwati li feeg njaayeen yi ngi bëgg ceeb yàpp laaxu ko raay allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg am mboolem xibaar yi wàcc ci ICAP TV abonné leen ngeen laal notification bi ngir mboolem information bu am ci ICAP TV ngeen mën di ci jot